président Macky Sall le 3 juillet il a dit qu'il ne fera pas un troisième mandat même dans ses voyages le protocole républicain a été allégé mhm. on sentait que c'était un homme qui se préparait à partir mhm. ñu dugg ci processus électoral bi ñu wax waxu report de nombreuses voix dans la majorité yëkkati ne en fait c'est l'opposition qui n'est pas prête c'est l'opposition qui veut le report et effectivement il y a des opposants la moitié ñi di yuuxu tey dama la koy dëggal ah. ils voulaient le report ils l'ont dox nañ ci yónnee nañu ci ñoom ñi di sànni xale yi ci àll bi tey muy benn ngeen nekk ci seen biir camp mu am une minorité basée quelque part ici bu nekk di def ay manœuvres pour en changer le candidat ama Ba ah waaw déglu ma rek seeni man ñuy manœuvrer eh. opposition bi di manœuvrer les recalés manœuvrer teg seen collectif ñu bari ci ñoom taxaw ne dañoo war a arrêter processus bi tey ñu ngiy daw ñu ngi koy weddi ah. conjonction yi yëpp ak affaire Rose Wardini yeeg la validation de la candidature de Karim Wade euh, le de la candidature de Karim Wade le de la candidature de Bassirou Diomaye xëy na dañuy accorder Macky Sall le bénéfice du doute Macky Sall jàpp ne xëy na la meilleure décision c'est de reporter les élections sauf que kenn du dédouaner Macky Sall. man opposant yi yoruñu réew mi Macky Sall dañ ko fal pour que muy jël décision yi baax ci ñun. Macky dañ ko fal pour que muy protéger les emblèmes de notre pays. Macky dañ ko fal pour que mu préserver suñu dignité en tant que citoyen en tant que nation. Macky dañ ko fal moomul boppam ñun dañoo bëgg Macky Sall génn réew mi avec tous les honneurs. ndax liggéey na ko fi jëf na ko fi. Ah. c'était à Macky Sall de prendre la bonne décision pour le pays. et est-ce que Macky Sall a pris la bonne décision pour le pays en reportant ces élections là moo tax c'est la question que je te moo tax kenn waru koo xalaat est-ce qu'il a pris la bonne Maïmouna, décision Maïmouna, à deux mois de son départ